mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ndax ñun ci rajo Rewmi FM ni ki tey itam ñu ngi am mbégte di waxtaan ci li nga xam ni nag moom moo jëm ci émission gox bi ñu war fee dalal ki nga xam ni moom moo di monsieur Madiop Diop nekk bokk moomeel bu Grand Yoff sëñ bi Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. maa ngi mhm. def koor jàmm. Mhm. di leen sant bi ñaan yàlla émission bi yàlla nekk njëriñ pour ñëpp. Mhm. Mhm. di nuyu itam ñi nga xam ni ñoom ñoo di mbokk auditeur internet yi ci xarala yu yees yi ci ñu ñuy teewloo ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci émission gox bi monsieur le maire Grand Yoff ni ki tey docteur Aloyse Waly Diouf nekk directeur bu cabinet bu ministre de la santé nekk itam porte parole bi ba mu tey xëyee tey di def situation bës bi dafa cité ni Grand Yoff am na ñaari cas ci li nga xam ne moom moo jëm ci coronavirus bi waaye laata li ni mel semaine bi nga xam ni moom moo ko topp ci biir semaine bi waxoon nañu itam Grand Yoff amoon na benn cas tey bokk meemel bi nga doon est-ce que mun nga ñu defal tey situation Covid 19 bi ci Grand Yoff. waaw situation bi may def pour Grand Yoff damay jàpp damay jàpp ne situation bu situation bu positive la. Mhm. situation positive parce que je pense que ñun ba fii. Mhm. amaguñu woon ay cas donc semaine bi am ay cas. Mhm. mais première cas bi nga xam ne moom la ñuy njëkk a détecté au niveau de Grand Yoff. ñu ne c'est un cas communautaire. déjà ko am déjà. kooku fayal la doon liggéey indi ko biir Grand Yoff. donc li ma jàpp mooy ñu dañ jëlagum déjà pour si ay disposition ak ay matuwaay baax na mhm. mais li war a gën a renforcer li ma jàpp mooy mhm. dugg ak génn mhm. dugg ak génn bi ma nar a posé problème parce que dañ nit foog ñu liggéey li leen di ñaan mooy suñu suñu suñu suñu liggéeyee il faut ñu fexe protéger seen bopp ba ñuy liggéey loolu daal laa mhm. yi nag ndax yéen a ngi ci euh, bu baax a baax ci li ni mel alors euh, bu monsieur dañuy wax ne rek li nga xam ne moom moo jëm ci ak micro bi euh, dégg-déggin bi dafay xaw a sooxe acca monsieur le maire kon matuwaay yéen a ngi ci. bon ñu ngi ci ñu ngi ci te daañu gën a kon na xeex bi. Mhm. parce que li ñu may sens mi mooy grave tey. Mhm. kenn du fa dugg te takkoo mas mhm. mbaa kenn dëkku fa te takk mas mhm. dañoo jël le bi du masque mu nekk obligatoire dans le périmètre communal. loolu tey ñu ñuy may chance. maintenant di am solo. mooy ñu fexe ba li nga xamante ne nii moom lañu nekk di liggéey. nit ñi jàpp lañu si. te nit ñu si jàppale. mooy ñu fexe ba gën a dugg bi ñu mun ko xoolaat. nit ñi foog ñu dem uti luñ lekk. Mhm. uti luñ naan. Mhm. foog ñu liggéeyi. Mhm. mais nañ ñu dimbale ba bu ñuy liggéeyi. ñu porté seen bopp. ba ba indaale feebaru biir Grand Yoff voilà loolu daal laa xam ne foofu daal laa yaakaar ne. buñ ko buñ si gënee taxaw. je pense yàlla mën nañu musal. en tout cas li nga xam ne nag moom moo di point bi parce que chaque jour ñoom dañuy génn def point du jour ci li nga xam ne nag moo jëm ci mbas mi yow boobaak ba loolu ba nga ko commencé tàmbali ba tey décompte bi tey ñaata la sa biir euh, commune. bon li ma dégg mooy trois cas. Mhm. laa dégg. et je système bi ñuy yëgalee maire yi donc ñu toog teel rek. Mhm. dégg na gën a am na benn cas am na ñaari cas. Mhm. te bu amoon te bu cas yooyu bu amee ñu dañoo war a topp kaay ba mu sës xool lu ñu jàppale famille bi ñuy encadre ñu fexe ba quartier ba ñu sécuriser ko. fexe ba gën fa def ay moyens yi quartier boobu ni ñu gën a fagaru sans kenn xam ne quartier boobu mu am ko am ko am virus bi. mais da ngay toog rek. dégg ne Graal am na benn kaa am na ñaari kaa lan moo koy prouver lan moo ñu si wóor test yi bu ñu koy def ñoom ñoo koy def seen biir seen biir laboratoire lañ koy defee. dinañ ko fekkee. Mhm. donc il faut ñu gën a impliqué waat maire yi parce que ñun demande wuñ état benn moyen pour prévention mhm. mais lu ñu demande état moo si amee ay cas yu am suñu communes yi nañ ñu ko wax waxuñu ñu fan la cas bi positionné wu fan la nekk. Mhm. ñu ma jël suñu disposition gën a taxawal askan bi si côté boobu. kon da nga jàpp ni anam guñ koy defee yow àndoo ci. mais baaxul amul respect si maire yi. mun a toog sa bureau rek jël ne diw am na kaa rek wax ko si bi maire bi toog bureau wala këram dégg ko fa kooku du mhm. te maire bi moo war def suivi bi moo commissaire de wala commandant gendarmerie ñu war def suivi bi. Mhm. ñooñu leen a informer à temps ñu xam réellement ce qui se passe. Mhm. lu ñuy nëbbu ñun xanaa affaire dafa leerul moo tax lu ñuy nëbbu bu leeree kat bu ñu ko nëbbu nañ ñu wax fan la kaa bi nekk ban kër la ñu dem ñu dem jóg dem fa. ñu ragaluñu corona bi. mais dañ koy moytu. mais lu tey ñu du tax na toog suñu kër nag bàyyi askan wi si mbedd bi mhm. donc ñun loolu laa xam ne war nañ si gën a bàyyi xel ñu mhm. ñuy vraiment joxe la bonne information et puis mu détaillé mhm. ay kilifa lañ ñu nag ñoom ñoo bokk mbir mi boobu la ñuy xeex si Grand Yoff laa ñu état dara lépp lu am Grand Yoff état def fa dara ñoo ko doon suñu bopp donc lu ñuy nëbb par rapport ak situation bi am Grand Yoff donc ñetti kaala lañ leen comptéegul lañ ñu wax ñetti cas lañu lañ ñu wax la ñaar ñaareel bi dégguma ko man ah tey lañ ko fësal tey. dañ ma ko wax man tey déglu ma. yëgoo ko dañ ma ko wax. Hmm. dañ ma ko wax kooku daa am respect. kon doy na waar ñu seetaat mbir yi. léegi ci loolu da jël ay mesures yu am solo da nga ciy ñëwaat ci marché yi Grand Yoff ku fay dugg tey wax nga ni ne dafa war a sol masque ndax loolu yaa ngi ci ba tey. waaw xam nga ñun déjà bi affaire bi amee. Mhm. li njëkk def ñun mooy fexe ba togoog ñu yore. affaire wér-gu-yaram waa Grand Yoff mhm. mooy suñu poste de santé yi. ak centre yi ak centre de santé. Mhm. ñoom ñoo ñu wax nu ñu war a doxale bi jiitu woon mooy fexe ba ñiy faj am protection bu doy. Mhm. seen xel dal ñu mën a jàkkaarloo askan wi mu leen dimbali. kooku pare nañ si réussir nañ ko chaque quinze jours lépp luy poste de santé Grand Yoff wala centre de santé da am dotation masque gant. ay. détergent combinaison. Mhm. détergent ak lépp. Mhm. su doon war tey commune joxe Sénégal ay ay ay ay combinaison. Mhm. bëriwul te Grand Yoff chaque 15 jours mu ravitaillé ay ay ay médecin ay infirmier ak ay médecin yom ay combinaison ay gants ay masques ay détergent. beneen bi ñu ne comme foofu pare nañ fa foofu ñu dem si marché. mooy bërëbu dajakaay yi. bërëbu dajakaay yi poste santé yi la commissariat Grand Yoff gendarmerie gendarmerie frontière. Mhm. marché yi dans le premier temps. ñu premier ñu jël poste santé yi gendarmerie frontière plus commissariat grave mhm. doté leen li ñu war a doté chaque 15 jours ñëpp ñoo jox leen dotation. Mhm. ñooñu foofu nañ dem léegi si marché yi. bu ñu jógee si marché yi dañu ne Grand Yoff am na ñetti marché ak benn centre commercial. ñetti marché yi marché Grand Yoff am na quinze portes. marché Arafat am na 14 portes. ñu ne marché Grand yi. ubbi dix yi. marché euh, Arafat ñu ñu ñu tëj six yi. Mhm. ubbi huit yi su ko defee fees dix yi ubbi cinq yi uniquement pour les la yeneen cinq uniquement pour les sorties fee aussi yeneen cadre yi uniquement pour les entrées yeneen cadre pour les sorties bi ñu deux portes la am ñu bàyyi foofu deux portes yi. chambre commerciale aussi c' est privé mais ñu ñoo koy saytu mhm. ñaari portes la ñu bàyyi noonu ñaari portes yi. Mhm. ba pare nag jël arrêté. ne marché bi. laata état di jël arrêté. avant mu état jël arrêté. Mhm. ne marché bi nañ ubbi 6 heures du matin tëj 16 heures ñu mën a tëj bunt yëpp. Mhm. mën a xam lu ne si biir mën ko désinfecté. beneen bi ñu ne képp ku dugg biir commune Grand Yoff baa nga dëkk fa takk masque obligatoire la si yow. force la. te loolu état waxagu ko. Mhm. Grand Yoff jëmmal ngeen ko. le port du masque n'est pas obligatoire dans dans le dans le pays. non attention mais à Grand Yoff takk masque obligation la foofu commissaire bi ñu ngi ci def li mu mën lépp pour garder ko instant Grand Yoff kenn ñëwul dox sans masque kenn ñëwu ko boo doxee rek amoo masque da lay jàpp yóbbu nga fay contravention jënd masque taxi donc li nga fay contravention jënd na presque dis masques wala quinze masques donc foofu lañ toll te day continuer beetaa ñëwee ne moom léegi dañuy tëj marché yi dañuy am temps yu ñuy jaay lu ñuy lekk ak temps bu ñuy jaay lu ñuy solo ak yooyu si laa jëlaat arrêté boo xam ne da war nañ ko jot suba pour yokkaat heure bu ñu tëj hmm. tolloo ak ministre ak ak ak ak préfet muy 17 heures hmm. kiy jaay ñaari fan ñetti fan bu bëggee tëj 4 heures day metti ci moom du ci génn du ci génn te dëkk bi dafa metti hmm. donc foofu lañ toll te loolu am nañ yaakaar ne bon yàlla dañu defal sutura ba kaa yi yem fii mais nañ ñu informer rek ñun pare nañu pour mhm. dem ci biir nit ñi wax ak nit ñi. Mhm. jéem a sécuriser suñu population jaral nañu mhm. ci loolu euh, impliqué nga ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di chef de quartier bàjjanu gox yeex imaam yi ngir sensibilisation bi gën a mën a yemb ci askan wi. waaw foofu des na foofu des na parce que ci yoon fi ñu jëm parce que j'ai réunion demain ak tous les infirmiers chefs de post ak le médecin chef ak le commissaire de Grand pour lan la pour ñu xoolaat lu ñuy taxawaate taxaw bi ñu amoon doon taxaw pendant deux mois ba amuñu kaa mhm. comme cas dugg na foog ñu amee taxawaay fi ñu jëm nag mooy créer des sous commissions pour riposte bi dans chaque quartier. Mhm. loolu nag il faut chef de quartier yi diriger ko. Mhm. ASC yi bokk ci. bàyyi gox yi bokk ku nekk nag gérer sa quartier sa bopp. dem si nit ñi waxtaan ak ñoom képp koo gis mu ñëw gan ku bees nga signalé ko ñu ñëw saytu ko xool wér gu nu mu toll nu mu mel. Mhm. ut ay masque mhm. jox ko ñooñu ñu koy distribuer ci biir commune. Mhm. moo gën a moo gën a yomb. que le comité communal bëgg a si suuf. loolu mooy sama question bi rek mu ci bëggoon toftal moom mooy est-ce que itam jotul ngeen euh, changer doxalin ci wàllum euh, communes yi fu ñu nekkee stratégie communautaire comme cas communautaire la ñuy wax indi ay stratégie communautaire comme ni nga ko waxee rek mel na ni day ñëw fekk si laaj bi. waaw c'est que nga ko mun donc li nga mën rek mooy léegi ki gën a suufe si quartier bi bokk si sensibilisation bañ a beddi kenn. mooy xale bu xale bu ndaw bi ci suuf. mais pour loolu am il faut chef de quartier bi gën a kawee si quartier bi. jël loolu loolu loolu loolu en mai. waxtaan ñu war a waxtaanal. impliqué ñëpp si biir quartier bi yëpp nekk benn. ku nekk di waxtaanal sa moroom ñu moytu ñu moytu dajaloo bi. ñu moytu dajaloo bi fexe ba nit ñi bu ñuy dajaloo si mbedd yi kër yi tamit ñu bañ a dajaloo si kër yi mu nga ne as njaboot. mais keneen mun na dugg si. Mhm. même bu nekk si dëkkandoo la mais daa war a takk maskam dugg si kër gi ku dugg si ma mën a takkal wax ak man aw ma si kersa parce que man maa war a jàngal nit ñi comportement bu baax li parce que ñoom yàlla moo tegal seen kanam. Mhm. man tamit damay takk masque wax ak yow fii dama takk masque ah. Mhm. yéen a tax ma ma wàcc ak tuuti. bien mais man duma teg sa masque fenn fenn. sama kër xaar toog sama njaboot. Mhm. duñ sa masque waxtaan ak ñoom bu kenn duggee ma takk sa masque. Mhm. te loolu la war ñëpp war a continuer du question bañ nit ñi. Mhm. wala xeeb nit ñi mais comme loolu la état bi santaane. ñu topp situation ñoo war a jiitu. si loolu nañu gis ñu mën ko appliquer. ci loolu Grand Yoff mairie euh, Grand Yoff moom dafa dugal loxo ci poosam génne koppar gu toll ñaata la ngir mun a endiguer feebar bi. bon ñun bëgguñu dugg si ay chiffres ay montants. mais conseil municipal Grand Yoff xam nañ ne ay moyens génn na si ni ñuy doxalee nii population bi xam nañ ne ay moyens génn. Mhm. waxuma dara mais masques yi ak gants yi ça coûte surtout les les gants médicalisés là ça coûte extrêmement cher yi mhm. xam nañu les combinaisons ça coûte cher génn nañu ensuite. côté denrée on a acheté cent trente cinq tonnes de dinañ ci ñëw. ci mbar dafa. mais li am solo. Mhm. mooy ñun bëgguñu wax chiffre mais daal. génne nañ loo xam ne waa Grand Yoff ñoo ñu ko dénk. ñu génnee si li ñu mën a génne. dinaa ko si ñoom bu jàppale leen si Covid 19. fenn rek laay gën a incité. mooy le préfet de Dakar bu def ay arrêté nay concerté wu ak mair yi am na solo. yàlla jox na ko sañ bi état jox na ko sañ-sañ jox ko doole ji mais waxtaan ñu tamit dina gën a tax li muy def mu leer. tëju tëju marché yi ni ko programmé ay lundi mardi kiy jaay mercredi jeudi jaay. man délégué marché benn ma marché moom ko yëgal. yëgoo ko yëguma koon après le sous préfet da mu envoyé benn note. donc ñu leen boole ci décision yooyu yooyu baaxul. Mhm. ñoom gënuñu bëgg suñu communes yi. ba pare nañu xam ne ñi nekk si mbedd yi di si marché di jaay ñoo ay njaboot. Mhm. grand Sénégal melul ni France nañu bàyyi xel ne ñiy jaay si marché yi dañuy jaay ba pare doo ko dem togg di añ. Mhm. nañ leen bàyyi xel marché yi nañu bàyyi nit ñi jaay loolu laa d'accord. mais nag respecte norme yi. kon tëj biñ ko tëj ay fan ak fan ñu koy. joxe mais la preuve ñun marché bi marché grand bi gars yi doon jaay chaque jour amuñu woon benn kaa ok kañ la cas bi ñëw suñu commune bi ñu commencé tëj marché yi naan ay ñaari cas ñaari cas te ku ku dugal kii bi suñu commune di jaayal si marché jaayu fa. dafa ñëw beneen service lay liggéey wàcc indaale ko donc bon sens la am ñu tëj marché yi amul sens. kon ñu xoolaat dogal bi. amul sens boulangerie xool ndogal bi ñëw si boulangerie. Hmm. ne boulangerie nañu nañu nañu arrêté jaay si kiosque yi si biti si mbedd yi mais li am si boulangerie moo gën a garaaw foofu lu am si kiosque yi li ñu bañ dajaloo dañ ne bëggeen demal xool boulangerie yi ngoon yow jëlal sa micro nga dem si boulangerie yi ngoon nga xool ni ñu mel ah ñoom euh, nee nañ euh, mbir mi amoon na problème ba ñu génnee fi benn plateforme bu bees jaay mu mburu yaakaar nga ni yow loolu gëmoo stratégie bu ma ne noonu ñooñu dañ nekk seen mbir di wax lu leen neex rek man maire laa sa dëkk Grand Yoff laa dëkk mhm. damay dox sama tànk chaque jour demal Grand Yoff nga xool boulangerie day fees del ak ay nit. constat bi kay def nañ ko du benn du ñaar. voilà parce que dafay fees kon da nga jàpp ne war a soppi stratégie. nañu bàyyi toog seen bruit du wax nañu wax si mbedd mi xam li xew ci terrain bi nañu bàyyi kees kuy jaay gi nga état. Mhm. état du rëy état du diis. Mhm. soo jëlee benn décision ñu xam décision bi baaxul ñëpp di ko wax. Mhm. mais amal grandeur u soppi. xoolaat doxalin bi yow ñu ngay liggéey ñu ñooy sénégalais. ñu ngay liggéeyal. gis am na fuy sooxe wax nañ la ko même ba dàqul ak ñun sax mais tëjul sa bureau ak say conseil nga waxtaan ak ñoom sans doxalin imaginel bu téeméer kees ki doon jaay exemple Grand Yoff benn yi tey benn boulangerie kese mooy jaay loolu yëpp ñooñu doon jaay foog nga foog foog nga embouteillage foog nit ñi dajaloo bu ko def am mais loolu xel loolu loo loolu du xel du xel bu xalaat bu xalaat bu tegu si yoon nañ ko accepté mhm. marché yi dimanche du ñu jaay. <laughs> ah samedi ak dimanche kay. demal marché suba nga xool. non léegi samedi sax yokk nañ ko samedi waaw samedi dañoo wax naa message su pré mhm. barki démb. Mhm. pour ñuy jaay lu dul lekk. ñoom dañuy ubbi. ay yére yëpp dafa am portable nekk am ñetti fan. voilà mhm. mais bàyyi ba suba nga xool day am rush ci marché yi. day am rush. parce que ñëppay bëgg a jënd. parce que ndugoo dimanche. vendredi day am rush. est-ce yu ñuy ragal mu gën a law foofu. waaw non mais xam nga am solo. Mhm. nañ nga ñu ay matuwaay nañ bàyyi nit ñi dugg si dëkk bi liggéey lekk mais jël ay matuwaay nag masque yi am nañ yaakaar na mun na si lu bari. Mhm. ku nekk takk sa masque ba a jox kenn loxo mais day na économie réew mi day gën a ndërmeelu. Mhm. bu bu ndërmeeluwul sax ba pare. ñu bëgg a téye nit ñi. duñ lekk duñ naan loolu baaxul ci population bi ne état delluwaat xelam xool li muy organisé wu. Mhm. kii feebar bi kenn du ko ragal da nga koy affronté. Ah, kon da ngay d' accord ci ñuy wax ni dañu war a bàyyi virus bi mu dugg ci nit ñi. non virus bi du dugg ci nit ñi déedéet du dugg ci nit ñi affronté xam mooy lan mooy jàkkaarloog virus boo pare jël sa matuwaay ba pare fex koo daan nag mooy lu virus bi di aaye du ma ko def. mais nag naa wàcc ci mbedd mi. Mhm. doxi samay soxla. dundal sama njaboot du dox farata aw ma farata toog sama kër. vingt duma génn takk sa masque fu may dem loolu mooy loolu mooy mesure ci loolu sax njiitu réew mi moom war na àddu ci li ni mel euh, mardi bu vingt heures jotee lan ngay xaar ci message am. li may xaar message mooy na bàyyi marché yi jaay ñu respecter norme yi ñun fi ñu dëkk man mi de sama yaay daa néewoon doole. jaar na si lii. Mhm. xam naa bu baax ni mu mettee am ñoo xam ne ñuy taay taabal ba 11h oo seen doom nag kaa jël dépense dem togg bu ñu toog suñu bureau rek parce que seen kër am na am na yàpp am na jën am na lépp. Mhm. nañu sóor ki nga xam ne day daw dépense au jour le jour. Mhm. nañ ko bàyyi xel mais koo na jaay ñetti fan. toog trois jours jaayoo. lu muy dundee. ku daan ut dépense chaque jour ku daan jaay chaque jour mënul dund ba moom nga ne ko léegi 3 jours ngay jaay si semaine bi. loolu lu muy dundee xalaat nga lool. non nañu jéem a xool ne corona bi yàllaa ko wàccee muy muy def comme ñun. Mhm. comme ñun dox si mission. waru ñoo tey dox suñu mission. Mhm. mais li nga xam ne bu ñu ko defee mu topp nañ ko éviter mais nag jàkkaarloog moom xeex xeex xeex xeex bi ndax mu jóge fi. Mhm. jàppoon gisoo ni itam ñu allégé li nga xam ne moom moo di couvre-feu bi ndax ñu bari ñu xaar njiitu réew mi tey lan la war a wax ci jàngoro bi tey parce que gëj nañ ko dégg mu ngir mu àddu si. couvre-feu bi wax naa ko woon si benn télé. avant ñuy um koor may ne dañuy um koor ne président xam nañ pays jullit la nekk ñu ëpp ay jullit la ay jullit lañ bokk. Mhm. am ñoo xam ne dañuy dañuy nekk si kër gi war a ndogu dem ñibbi balaa ñuy génn vingt heures passé kooku da koy sóor mhm. donc heure bi da ko war a yokk. maanaam jële ko ci vingt heures yóbbu ko vingt deux heures wala vingt waaw mhm. trois heures. am ñoo xamante ne sax bu ñu xëdd sax problème la dañuy xëy dem la boutique bi pay mais soo yegg see juste sa kër 19 trent 30 19h45 dugg sa kër doo gënaat état bi ñu yor. bu ñu xool France France defuñu confinement total. ndax suba leen ni war a génn ci li ni mel. ñaata dee fa am. bari na de est que tooguñ seen kër yi tëjuñ boutique yi tëjuñ magasin yi. Mhm. bañ njëriñ la am amul njariñ nit ñaa ngi dee rek. boo gisee kay def lee am ay conséquences yoo xam ne baaxul. danga war a def leneen. da nga jàpp ni moom day copier fële ca tugal. mais loolu la tubaab yi dañuy copier ñun ñu def ñu def ko mais sunu sunu réalité bokkul sunu président Sénégal man. Mhm. du def lii ñuy def nii. maanaam ku beneen façon laay xeexee. ok ci léegi yow ban façon nga nga bëgg. xeex bi mhm. mooy couvre-feu baax na. Mhm. vingt mais dafa teel. da gis ku nekk Kër Massar. di jaay Petersen oto yi doyul. su defee couvre-feu vingt heures ne Dakar dem dikk na nga na nga stationné fu nekk pour mën a jël nañu yóbbu la ñu beneen bi mooy soo jël ay mesures yu jëm si ay ay affaire dund gi nga bàyyi xel ki néew doole nekk suufu suuf sénégalais bi xam ne kooku moo ñoo ñaari fa yoo xam du taal kër du taal cin këram parce que amul moyen. Mhm. nga xool ndax nga organiser ba kooku mën a xëy di daw di ñëw. mais defuñu ko. te suñ bureau rek commencé wax. Mhm. ba pare prélèvement yi ñuy def da ngay ñëw ñu ne la cas sa cas def positif yow doo xam dara yow xamoon nu ko defee xamoon noo kii positif la koy wax rek ko noonu kooku leerut daa war a gën a leer Sénégal seen xel gën a dal dund yi daa bari man si base bi laa nekk. Mhm. dund yi dafa bari si bopp Sénégal yi ñoom ñoo ko war a leeral mu am transparence totale beneen ministre de la li ñu ko jox pour mu jox ko. pour cent ko jox nit ñi santé bi amul dara. maanaam liñ ko wax pour mu jox ko ñi nekk ci base bi. yeggul yeggul si yéen. yeggul fenn grand dafa ñu fa dara lañ fa deful dafa ñu fa dara lañ fa deful te ay milliards lañu wax. te wàcci gisoo leen dara. gisuñu dara gisuñu dara nañ dimbale institut de santé yi joxe équipement leen ay moyens motiver leen ba pare bàyyi def discrimination si motivation yi dañuy motiver les les agents étatiques. bàyyi agent communaux yi. pour lan fu ñu ko teg. kon weg bi dañ ko war a. waaw mhm. te poste sante boo dem. Mhm. poste santé santé boo dem agents communaux yi ñoo fa ëpp. ak les ASC ñoo fa ëpp. ñooñu mutation bi kenn joxagu leen. pour lan. jot nañu seetaat mbir yi. di yoon. Mhm. te liggéey bi ñuy liggéey. est-ce que bi dina ko liggéey. du ko liggéey. donc état dafa war a def équilibre ci lépp lu muy def. loolu mooy yomb. dañuy wax ci li nga xam ni moom moo indi coow li polimique bi kit alimentaire yi ndimbal gi état war a joxe waaye laata ñuy yegg ci ndimbal état war a joxe saako ceeb yeeg diwlin yi ni mel yow def nga li ni mel lan nga génne pour jox ko askanu Grand Yoff ki pour ñi nga xam ne ñoom ñoo néew doole ci mbir mi ñu mën ko jariñoo ñun lu ñu lu ñu def pour mooy ci denrée joxaguñu benn benn Grand Yoff denrée à part denrée daara yi ngeen gën a ciblé ba parce que daara yi ñun gis ne ñoo ko gënoon soxla moment boobu. Hmm. ñaata daara la Grand Yoff am. Grand Yoff amoon na recensement bi ñu defoon trente trente trois daara. Hmm. mais après am na yeneen dix daara yu dolleekuwaat. Hmm. yu 43. donc ñooñu sax lañ joxagul déjà ñoom ñoo des 10 yooyu ñoo des. donc ñun li ñu njëkk a def mooy fexe jox daara yi xale yi toog bañ a yalwaan. li ni mel respecté nañ ko. te ba tey daa mel ni gis na ay quelques xale yu yalwaan mais wàññeeku na. wàññeeku na trop grand yi mais am nañu gis naa ñu ñe man gisaguma mhm. mais am nañu man ne gis na ay taalib yu yor wan te jàpp ko dem ba këram mhm. fi muy fi mu nekk xool sëñ pour pourquoi xale ñoo ngi ci après ñun commencer nañu cent cent trente cinq tonnes de riz mhm. commandé nañ deux mille sept cent bidons d'huile ak treize mille cinq cent paquets sucre yoo xam ne dañu ko war a jox nit ñi mais li ñu jàpp ñun mooy comme état mu ëpp lu muy joxe ñu mënuñ état mu ñu tolloog moom si li ñu joxe donc dañuy wax état joxe ba pare joxe ba pare. ñi def fi ñu yem. ñu xool ni lu ñu am ñu complété ko. kenn ku amaat aussi bi grand yi war a joxe tamit fi ñu yem ñun. nga ñëw complété ko su defee kenn du am ñaar yoon. loolu noonu la ñu di xaar état mu indi bosam. bu fekkee nag indiwul. ba ñu xaar ab diir mu ñëwul il faut ñu joxe suñu bos. jàpp ni état bosam xaw na yéex tuuti de. yéex na trop xawul yéex dafa yéex trop. et je que dina ñëw dina ñëw. parce que état bi wax nañu ko am nañu si état bi confiance dina ñëw te je pense xam naa yoon bi moo yéex mais yëpp dina ñëw. Mhm. état su paree joxe fekkee nag joxewul fi fii ay quelque temps il faut ñu ceeb bi ba mu ñu stocké bu yàggee sax dafay suuf day tooy. Mhm. am na ñu naan li nga xam ne moom moo jëm ci denrée yi ni mel. ñoo xam ne su foofu familiale bi lañ gën a euh, wekk pour que ñeneen ñi anam gi ñu recensé bay jox ñi nga xam ne ñoom ñoo jëm ci li ni mel ndax yow ànd nga ci doxalin boobu. bi état doxal. bi état doxal ànduma ci. ma ci parce que bourse familiale yi. coronavirus bi dafa leeral lu bari. Mhm. coronavirus ciblage bi sax dañ ciy wax ndax yow ñu ne maire di ngeen ci bokk ak député ak ñeneen ñi ciblage bi comité bi ba montage bi naka la demee. voilà comité bi moom état bi ni mu ko tegee tegu na si yoon. sama jalgati. Mhm. maire yi la. sama jalgati. Mhm. maire yi la ak ñu nekk si base bi. état moom ni mu ko tegee. Mhm. leer na nañ amul parparloo. doxalee nga ko noonu. man yaakaar naa ko. Mhm. du man maa koy mais Sénégal waa grand ñoo ko mën a jugé. Mhm. dañu ne maire bu nekk. yaay présider sa commission communale. day am délégué de quartier yëpp dañ siy bokk si communal bi am représentante femme yi. représentant jeunes yi mooy. Euh, conseil national conseil de la voilà conseil local de la jeunesse. am représentant relais communautaire. ñu ñuy composé commission communale bi. si mm-hmm. kaw ak ay ñoo xam ne nekk ay ay affaires ressources. Mm-hmm. comme Grand Yoff jël nañu jël nañu jël nañu sociologue bi Djibi Diakhaté. Mm-hmm. jël nañu honorable kii euh, maître maître Sey. ñu dañu leen dugal ci biir. pour ñu nekk ci pour ñu nekk. comité bi dañuy ñëw pour du ñu xelal. bu waree dënk ay mag lañ ñu jubbanti. man jiitewuma ko. ok damaa ne sama adjointe au maire Edwige Gomis moo ko jiite. commission man bokk ma ci. dama nekk dama ne en centré pour. mun a superviser. Mm-hmm. maintenant ñu ne léegi dans chaque quartier. Euh, délégué quartier moo koy jiite. Mm-hmm. ak bàjjenu gox yi femmes yi jeunes yi ASC yi ñoo koy jiite. ba pare ñu ne. Mm-hmm. ñooñu ñooy dem defi recensement bi def ciblage bi. kenn amul droit indi ne maa indi bi déedéet da ngay ànd ak ñoom. ñu dem ci dugg ci kër yi dem recenser kër yi indiwaat ko état ko loolu wax leer na. ku def leneen nag yaa ko def mais kuréel bi ñu préfet su préfet envoyé ñu suñu mhm. looloo si ne. te loolu moo ne Sénégal yëpp yaakaar na parce que benn circulaire bu ministre bi envoyé la. Mhm. ñu tas ko donc bu amee ay yàqu-yàqu. ci comité yi ci comité yi la. Mhm. foofu moom état bi ak ministre bi seen yoon new si franchement parle ki kii di am na ñoo xam ne dañ ne bourse familiale lan am ñoom ñooy ah ëpp ci foofu euh, am na problème foofu laa d'accord ak état nag que Covid bi 19 bi dafa leeral njuuj njaay yu bëri yu amoon bourses familiales yi. ok gis benn kër papa am yaay am doom am bon am bañan am ñu cinq personnes benn kër wala quatre wala trois état bi ne par force ñooñu dañu war a am. problème la de. comme Grand Yoff sur 17632 si je ne me trompe pas ménage. Mhm. am na 5486 xam 82 yoo xamante ne. si dañoo si dañoo bokk si RNU bi. ci bourse familiale ñoom bi mm. ak euh, carte élargie de chance mooy ñi am. Mm-hmm. handicapé handicapé si si. Mm. ñooñu war am par force. mais boo duggee benn kër mu am quatre ñu am bourse familiale. am ku nekk sa wet koo xam ne. amul bokkul sa familiale. te recensement aussi mënul daj mënul daj ñëpp. jëluñu ko. Mm-hmm. yow nga am huit saako ci huit saako ci. kii amul sax benn. so c'est injuste. donc grand yi moom duñu def loolu moom. grand yi moom duñu ko accepté moom loolu moom duñu ko def état moom waxee duñ ko respecté foofu moom sama vote laay teg carrément duñ ko respecté mun am huit saako ceeb ki amul dara. xel xalaatu saa mën ko bu familial yi daa bu ay tappale ko ñu daj dafa bu leerul benn ko am quatre quatre personnes yu am familial chaque chaque trois mois ñu am xaalis ñu ko beneen koñ bi amuñu kenn nit. kon la ngay rejoindre nit ñi naan mbir mi mbirum politique la la léegi leer na dañuy tànn ñu leen neex jox leen. Hmm. enquêtes yi amul benn sens. defee enquête kay on va sur le terrain vérifier enquête bi est-ce que dëgg la seen bureau lañ toog di def enquête mais loolu la dañuy dañuy ñëw dañuy wax nit ñi kaa leen mairie Grand Yoff dañuy def sax même bu ñu def enquête duñu ko yëg dañuy ñëw nañu am boo xam ne dama leen dàq ci biti dama xëy rek gis ñu toog ñu ne bourse familiale enquête la ñu leen ci biti ñu ñëw dañu envoyé note wax ñu da ngeen di ñëw da ngeen toog seen kër ba mu ne ñëw naan ci biti ñu doog ñu expliqué jéggulu nanga ma bàyyi la ñu def xam nga waa Grand ñoo ko ma bàyyi ñu def mais am na ñun at boo xam ne daaw jéeg bu ñuy defee bi ñuy ab bourse familiale yi génnee mhm. ñu jël rapport bi génnee nit ñi mille personnes yoo xam ne am na ñu dëkk ñu Grand Yoff te ñu ngi jot jot si turu Grand Yoff ma yee sama téléphone di woote foo dëkk mu ne Kër Massar maa ngi Rufisque mais ce n'est loolu doy na waar de léegi ku nekk ku jël mbokk bu nekk feneen sax jox bu familial du yoon kon Covid bi dafa génne failles yu am ci. dafa génne dil yi amoon ci biir ci biir kii ay dil la yu amoon ci biir bourse familiale bi mm-hmm. mais noo mën a comprendre benn kër am ay quatre personnes. Mm-hmm. yeneen kër yi amuñu kenn. en tout cas ñun grand moom si ceeb bi. Mm-hmm. dañ koy corriger moom. maanaam yoon ngeen fay nar a teg. yoon lañ fay teg li ministre wax. duñ ko def duñ ko respecté jox benn kër yu sàkku ceeb. bàyyi ñeneen ñi duñ ko def. amul sax ay masla bu ko ne mu nangu ci am yóbbu duñ ko def mais nag ñu fexe ba ñëpp am ku am carte kay jox ko deux sax deux personnes nga am quatre saako ceeb sax yeneen quatre saako ceeb bi des nga xool yeneen ñaari kër mhm. jox leen ko te yooyu loolu maa koy décider mhm. mais commissaire comité communal bi ak sous comité yi nekk au niveau de quartier ñu war am personnalité boobu rek def ko voilà boo jëlee mille personnes yoo am quatre ku nekk sa kër quatre mhm. nga jël fa fu nekk quatre saako ceeb ñaata la du 4000 saako. 4000 saako ceeb bëriwul. bëri na 8000 saako ceeb la bëriwul. loolu bëri na amul fu mu mën dugg ñaata famille suñu am. Mhm. ak ñaata gros suul mi am ak ñaata diwlin mi am. Mhm. donc il faut ñu xool nu ñu organiser woo ba vraiment. Mhm. ñu respecter équilibre bi. mais ñoom dañuy wax ni na ngeen ñëw ñu defaral leen saaku ceeb bi jox leen ko euh, est-ce que anam jiñ ñu koy defee Euh, jaadu na itam est-ce que loolu itam euh, euh, indiwul rek li nga xam ne moo di beneen rassemblement ci affaire bi ni mel. waaw non séddale bi moom day am dajaloo mais idée bi baax na. Mhm. maintenant ñu ñoo war a xool ku nekk sa commune yaa war a xool na ñuy defee mise en œuvre bi. Mhm. idée bi moom baax na idée bi moom vraiment baax na te ndimbal bi nit ñi soxla nañ ko. yéex na waaw yéex na trop mais nit ñi soxla nañ ko aussi. Mhm. ñu ñoo war a xool ministre mënu wàcc ministre mënu wàcc ba si commune nekk di commune yi mhm. sous préfet yi mënuñu ko mais maire yi ñoo war a xool ak seen équipe yi mhm. ñu organisé woo ba dañu bañ am kooku du seen cër suñu cër la nag yéen a war a jouer foofu seen role waaw ñun la mhm. ñoom bu ñu xasee jox ne seddale leen ñu ñoo war a xool nag ñu fexe bu ñu seddalee nit ñi bañ a dajalo te grand lañu jàpp ñun mooy dañuy fexe ba chaque école bu nekk si benn bu pare ay quartier mhm. ñu yóbbu fa stock bu waa quartier bu mu bañ a am sumbuxloo bi nga xam am benn site mhm. am na presque dix yoo xam ne ñu ko tànn école yoo xam ne fu la ñu yóbbu ni du am pëcc bon du ñàkk na mhm. parce que dafa bëri tax di sept mille ménages mënu bëggee jox dafa bëri mais war nañ ba nga xamante ne même amee pëccaxoo tamit du du du du bari trop pour bañ après bu luy jeexee ñoo ñëw yóbbaal ay cas seen kër yi seen quartier yi affaire bi gën a law Mm-hmm. donc loolu war nañ si bàyyi xel bu baax a baax a baax feneen fi may kii mooy. Mm-hmm. par rapport ak les pièces d'identité la. Mm-hmm. moi je suis pas d' accord nit ñi ba leen di leen sonal pièces d'identité pour lan. les copies d'identité yaakaar ni beneen problème la. les la pour lan. am na sax ay ñu exiger légalisation copie d'identité. waaw justement foofu am na ci ñoo xam ne nee nañ euh, li nga xam ne moom moo jëm ci légalisation carte photocopie carte d'identité yéen maire yi da ngeen ci bëgg rek ut prox ndollu ngir ut ci ay koppar. waaw man de sama commune kenn légalisé. sama Grand Yoff sant ñu kenn mu joxe copie d'identité légalisée ku leen ko laaj bañ leen sant ñu ko kenn. àndoo ci loolu. ànduma ci copie d'identité nag état bi ko demande dañ ko dañ ko joxe. mais su ma joxee sama sama denrée yi nga xam ne waa Grand ñoo ko jëndal seen bopp. Mhm. laal daa ñu kenn sa copie d'identité tur sant téléphone kër goo dëkk lañ soxla pour mun la woon ne la kaay sa ceeb soxla wuñ sa def pièce d'identité sa ni copie d'identité mais Grand Yoff laajuñu kenn copie d'identité légalisée ku leen ko laaj bañ leen copie d'identité simple la te bañ boobu lu tax ngeen bañ am si ceeb bi ceeb bi ñun moomuñu ko état moo ko jël jox ñu ko pour yéen la lu si état doxalul waruñu ko nangu bu leen ko kenn teg bañ leen Grand Yoff laa wax ku leen ne indi leen copie d'identité légalisée ne leen ko maire nee na joxewuñu ko photocopie mhm. sa copie d'identité yóbbu joxe mhm. Mhm. monsieur le maire ba tey di fàttaliku rek mbootu mbokk euh, auditeurs yi tey Madiop Diop moom mooy bokk moomeel bu Grand Yoff waxtaan dafa neex ba mu ñëwoon sax ubbi ligne bi 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 gouvernement bu Sénégal Macky Sall dafa génne arrêté. wala sax dogal ci conseil des ministres mu ne lënc lënc yi nga xam ne moom moo doon am bu ngeen bëggee jot koppar procédure yi ngeen waroon jaar mu bari da koy ndax ngeen mën na mu permettre leen ngeen mën a génne ay moyens ngir xeex jumtuwaay Covid di ay euh, Covid 19 bi euh, dogal boobu lan moo ci sa xalaat. baax na te loolu daa war a continuer sax waru nekk war a continuer pour maire pour éternellement bu ñu war ay décaissement yenn procédures yi. Mhm. ñu allégé ko. wër bi day métti. waaw ñu allégé ko. Mhm. mais nag si côté code des marchés bi moom foofu baax na parce que foog ñu def appel d'offre yi depuis day tax du am njuuj njaaj. Mhm. kooku moom tegg nañ ko nii si commune bi. mais bu jeexee kooku dañ ko war a gën a renforcer sax parce que marché yi bu amee transparence rek da ngay noppalu. surtout bi day noppalu. loolu. teggi na ko mais du tax nag aussi ñu respecté taxi yi ba léegi voilà. ci jox ki jox marché bi na ko jël. na livré ñu ñu ñu fekk ko xaalisam. parce que bu luy jeexee day audit. Ah, waaw bien sûr. faaw ñu saytu day am audit. Mhm. donc bu ñuy jeex rek audit nag même fekkoon amul audit te say néew la ñoo la dénk fexeel ba yow li ngay def bu subaa nga mun ko du wax say expliquer sa consultation ne nii laa def. kii moo gagné lii la livré li leen réceptionné lii lañ séddale mhm. pour mu leer donc loolu je pense que allégé nañ ko mhm. mais je pense que maire yi conscient nañ de telle sorte que mhm. daañu gën a góor góorgóorlu si loolu ba lépp loo xam ne normes yi da ko respecté woon ñu respecté ko mais rek la ñu level benn leneen la ñu level mooy appel d'offre wala wala DRP rek la ñu level ni mu doon jaaree ñu war a ko réceptionné commission war a réceptionné lépp réceptionné lépp kooku ba léegi tegu kooku mi ngi fi dañ ko respecté ok mais monsieur maire am na ñu jàpp ne koppar gi bu génnee yéen euh, euh, commune bi wala maire yi da ngeen di jël xaalis bi utiliser ko ci yeneen bërëb ndax d'accord nga ci ñuy wax jibal xalaat bu mel noonu parce que jàpp ne yéen ay fonds politique ngeen ko nar a defee. bon xam nga li ma mel la jàpp naa ma lañ mel soo génnee ceeb soo génnee xaalis pour ceeb. Mhm. xam na ñaata ton ngay jënd xam nañ ton ñaata la noo fay njubla nga am na commission boo xam moo ko réceptionné yow boo bokkoo si commission boobu. Mhm. ñeneen ñoo ko réceptionné. Mhm. ne la waaju indi na nangam nooy si ñun jaaja soo jëndee xaalis pour ay gants ay masques xam nañ quantité bi ñaata la xam nañu montant bi ñaata la nooy ñub la ngeen na commission professionnelle bu fekkee da tabax benn salle boo xam ne da nga ko a préparer boo amee ay cas leen fa dugal xam nañ montant bi ñaata la salle bi dañ ko ñëw gis de vue réceptionné ko. nga mhm. doo ko fay waaj. nee nañu njulong xaalis commune neexu njulong de. <laughs> kon gars yi wax loolu dañuy. wax xaalis la boo xam ne aussi mu ngi trésor. un fournisseur bu livré ba pare boo koy fay par virement nga koy fay virement nga koy fay doo ko jox xaalis liquide mais amee ah, amul fenn da koy fay par virement noo ñëw la kon ñu jëbal xalaat boobu xalaat boobu taxawul. bon pour man nit ñi waruñu ñaaw njor dañu war a jàpp ku nekk comme sa bopp rek bañ a mhm. tuumaal kenn te amul la wóor mhm. nañu moytu di tuumaal nit ñi am na ñoo xam ne dañu yaakaar ne ñoo gën a jub ñi politique ñoo gën a dëng ñuy politique mhm. ñuy politique ñoo leen gën a jub foofu am na mais foo dem am na ñuy def na ko donc faut ñi di di ñaaw njort si doomu aadama yi nit sax mun naa jum def erreur ci gestion benn gestion de parfait comme comme comme comme yàlla ni mel yàlla rek moo parfait. Mhm. mais boo defee ay njunde sax dañuy dañ koy utiliser à d'autres fins. ñu wax ci leneen beneen mbir ñu ngi jëm dëgmal nawet ñaari weer wala benn weer ñëpp xam nañ ni nawet ak corona bi dina metti lool mais monsieur le maire Grand Yoff bu tawee li nga xam ne moom moo jëm ci station beeg euh, li ni mel ndox bi dafay bari foofu monsieur le maire est-ce que mën nga ñu expliquer lan moo waral ndox bi di génn à chaque fois lan mooy problème bi. bon foofu problème mu évacuation eau la. amul réseau évacuation eaux pluviales station par doigt mhm. ba ma nekk xale ba tey mhm. noonu la mos a mel ñëwee nag ñun sàkk nañ si pexe bi ñëwee dañu ne li ko dalee marché Grand Yoff li ko dalee euh, euh, pharmacie par doigt romb marché bi romb police bi mhm. dem ba ba camp foofu yëpp day am bërëb yu taa ñu ne dañuy def ay grilles avaloirs yoo xam ne dañuy dagg marché bi am na caniveau boo xam ne def nañ ko pour eau pluviale bi bu romb buntu police bi dem. Mhm. dañ ko ci connecté. yéen a ko defar. boobu xalifaa ko xalisaa bu nekkee maire maire Grand Yoff. Mhm. la commencé woon projet bi. après bi mu wàccee membre ñëw yeggale projet bi ñu ne ñun léegi buñ ñëwee nañ mën nañ fa def connexion. Mhm. ñu defar grille yi lancé marché bi dafa yi ba pare. azur azur azur mu ne kenn du ko fa teg parce que taleem la. mu ne nañ jël nañ ko jox mu dem saytu ko. xool ndax baaxul bu ñu ko joxee fekkee xool na ko nee na baaxul nañu ne baaxul defaraat la ba léegi waxuñu dara ba tey ndox moo koy taa ndax lay jàpp ni Azurut moo yokk situation bi moo ko yokk wala nag boo Azurut na ñëw moom jël ko boppam defar ko comme taleem la na ko defar ay am nañ budget nañ ko defar mu xëccoo wuñ defar mais defaroo du defar amul fenn ne lañ defar dañ jàpp ne baaxul qualité bi baaxul nañu wax nañu ak ah, qualité bi baaxul def leen qualité bii def leen ci dosage ciment bii ak dosage béton bi pour mu nekk qualité bi ñu respecté normes yi ñoom ñoo ñoom ñoo xam affaire yi mais defaroo du ma defar amul fenn te nag fu ñu jëm nii je pense que ragal naa ñu def ko de force ou de gré parce que gis nañ ni DG ONAS bi moom chaque jour bu ñuy waaj a dugg ci nawet day wàcc ci bërëb yi nga xam ni ñoom ñooy gën a sonn ci li nga xam ne moom moo jëm ci euh, ndoxu taw bi ndax yéen yegg si na ngir saytu li nga xam ne nag moom moo jëm jafe-jafe yi nga xam ne yéen moom ngeen jàpp ONAS moom lu ñu mën ñu ngi koy jéem grand franchement parle lu ñu mën ñu ngi koy jéem mais seen moyen moo néew ONAS moom ñu ngi def lu bi amoon mooy doy gëm naa ne Sénégal ñu am sa part assainissement parce que ñu fa nekk xarañ nañu ni ma gis ñu liggéey xarañ nañu mais amuñu moyen ay ñaari camion mooy daw tout Dakar wala ñetti camion day metti si ñoom seen agent dañuy liggéey ku guddeeg bëccëg xaw kooku du ñoom mais pour man dañu war a fexe ba doter ONAS le moom de moyens pour ñu mën a liggéey mais ONAS sincèrement ñun aussi à notre niveau avant toujours pré-hivernage dañ koy def. Mhm. dañuy curage mhm. def curé caniveau yëpp ba mu set. Mhm. curé ba mu set tonni ko tuuri ko bu ndox mën dem. yéen a ngi ci wala yéen a ngi koy. waajal dañ koy waajal waaw dañu bëgg a bàyyi au moins fin du fin du mois après koor gi. parce que boo curé léegi. gars yi dañuy def ay ay mbalit ci biir. mais loolu la itam jot na askan wi itam mën a dugal seen loxo. si lu mel waruñu ko def. da ngay bàyyi ba ba ba ba ba naw bi ba tawet bi ba nawet bi wàcc ñëw carrément ba jege si nga doo curé. boo ko boo ko teelee curé ay bopp xarak lu na nga siy gis mhm. ay ay ay ay mbalit lu na nga siy gis kooku fay def mhm. nit ñi la ñun waa Grand Yoff ñoo koy def kenn de keneen def ko mhm. donc ñu ñoo war a ñu ñoo war a préserver suñu caniveau yi yi pour la eau pluviale ba fa la jaar du pour eau usée ko si si si caniveau eau pluviale jaar directement donc yooyu ñu ñoo war a suñu bopp xam ne kat li ñu war mooy defar suñu gox ñu ñoo ko moom maire bi nga ko fay teg rek pour muy coordonner mais dëgg dëgg dëgg dëgg jëf yi population bi ñoo koy jëf te maire dafa jóge suba mhm. population dafa fi des mhm. émission gox bi di dalal ki nga xam ni moom moo di ma Madiop Diop nekk bokk moomeel bu Grand Yoff monsieur le maire ñu wax tam ci li nga xam ni nag moom moo jëm euh, ci euh, réalisation yi parce que yàggul dara laata Covid bi di ñëw gis nañ la nga inauguré benn marché bu yees ca yaakaar naa su ma jugumul ci biir Arafat. Mhm. mu nekk ab marché boo xam ne euh, li ni mel soppi na aw xar kanam léegi yaa ngi woon itam ci mbiru maternité fan nga toll ci mbir yooyu. maternité bi avancé na trop bon daanaka li ak li ko œuvre yi li si ëpp jeex na. Mhm. donc tuuti moo des ñu ngi Covid bi moo xaw a bloqué parce que ouvrier yi fu doon liggéey daa ñoo xam ne ñu ñu dëkk Grand Yoff am dëkk ñu Grand Yoff. Mhm. bu ñu naree ñëw di dalaat day métti si ñoom. et ñu ngi organisé wu xool naka lañ si naka la ñuy def pour yeggali ko mais bëgg ma sori quoi. Mhm. parce que naa ñu may déglu ñoo xam ne samay adversaire lañu. Mhm. te li ñu ma yëkkati foog ñu yàqu ko. moo dama si préféré teg noonu rek mais en tout cas li am solo. Mhm. mooy état civil bi pare na. état civil boo xam ne ñun ñoo koy informatiser. Grand Yoff. depuis 96 ba tey informatiser wu état civil. 96 2000 lañ informatiser temps Khalifa fa nekkoon maire. ñu arrêté ko instant yi 2000. ba deux mille vingt yëpp la dugal si machine bi. te leen nekk nii par na logiciel bi pare na yàlla dogal xale bi ko doon def yàlla daa yàlla ko tawat. Mhm. yàlla na wér ak jàmm. Mhm. yàlla yëkkati. loolu moo tax continuer guñ mais incha allah léegi léegi ñu pare ba nga xamante ne ku bëgg a extrait. Mhm. dix minutes nga si extrait. te doo sonn dootul méttiit waaw dootul méttiit quoi. te te dina tax mu gën a mu gën a yombal waa Grand Yoff. marché tamit il faut ñu defar marché parce que marché yi ñu war marché boobu dem pëcc xoo taabul fii daaj bant mu génn dafa war a xew yi senegal mm. Grand Yoff lañ ko bëgg a dooral. bari loolu nga gis ba changé li ni mel. voilà marché Arafat tey marché moderne la Sénégal benn marché gën ko moderne noonu la marché Grand Yoff ñu ngi si tànk yooyu ñu waxtaan pour xool ñu ko defee. Mm-hmm. nànk nànk li am solo mooy réew wala commune kenn ko defal si benn mandat wala ñaari mandat ñetti mandat da ngay ñëw def li nga mën. Mm-hmm. nga dem keneen kiy ñëw fi nga yem. Mm-hmm. mu continuer kooku bu bu demee te li am solo mooy fexeel ba def dara yow. fexeel ba am loo teg. Mhm. matériel bi tey su ma yemoon fii tey ki ñëw da koy yàggali du ko daan tabaxaat kooku tam bu paree kenn mu ñëw teg teg premier étage. Mhm. c' est que noonu la c' est la am solo mooy maire li gën gën a bon ci maire mooy ñëw dafa fi dara dem si yoon loolu loolu day delloo commune ginnaaw. Mhm. te tey Grand du ñu commencé ay chantier ku ñëw di nga am loo yàggali voilà. am na loo teg sa loxo tey nga ni lii euh, ay bokk ay ñooñu ma jóob jóob ñoom ñoo ko defar waaw. lu bari sax dama yàgg nekkoon si bilan bu mu yeggee damay wax ba pare une image damay wax ba pare lii bi mu ñëw fi laa comme caniveau yi nga wax rek caniveau yi. Mhm. grand ku rombaan sa pota pota si caniveau yi. lépp maa ko tëj ñu bëri damm nañ fa seen tànk damm na fa seen loxo damm na fa. Mhm. seen portable surux na fa seen lunette daanu na fa tey amatul grand yow. amatul caniveau boo xam ne dangay fekk mu ubbeeku. Mhm. amatul mbirum insécurité bi nag yaa ngi ciy def ay joyanti. waaw kooku du suñuy du compétence. Mhm. mais yéen a ngi ciy def li ngeen mën. voilà compétence légale yoon la. Mhm. police moo ko yor. gendarmerie ak ministère intérieur ñun li ñu mën mooy fexe dëkk bi leer. dëkk bi leer. bu fa dox guddi. xam fi ngay jaar. ñu ngi si ñu ngi renforcer carrément éclairage public Grand fi nga ko fekk ak fi nga fekkoon démb ak tey wute na trop. beneen bi aussi commissaire ak. gendarmerie au commandant ñu ngi def lu ñu mën a Grand Yoff léegi am na sécurité mhm. dañuy wax rek mais am na cas yu ñu gën a yu ñu gën a ñàkk sécurité foofu te ñu leen wax ñu leen wax mais Grand Yoff bu dëgg yàlla am na sécurité mais nag sécurité du doy même président Macky Sall sax sécurité am doyul lu renforcer ko doyul sax donc man te comme mooy président mun am lu doy mhm. donc da am li nga yaakaar ne baax na rek mhm. nga koy gën a parfaire mais Grand Yoff dëgg yàlla suñu police bi gendarmerie foire ñu ngi def lu ñu mën doo toog Grand Yoff dix yoo xam ne oto police romb la. gis nañ fi sax keroog euh, couvre-feu bi am na ñoo xam dañoo jalgati li ni mel ñu yoon teg. waaw leen loxo. voilà euh, lan ngay wax ci popi askan wi. bu jotee ñu respecté ko rek. c'est que mhm. ñun ñoo war a yombalal sunu gendarmerie ak sunu police seen liggéey. Mhm. ñoom jóguñu pour fitnaal kenn wala bundu xataal kenn wala toroxal kenn. Mhm. mais nit nag boo ñu boo toroxal la. yaay bañ a toroxal sa bopp. mooy lan lu yoon teg bu ko jéggi. lu yoon teg boo ko jégee lu si fekk yaa ko teg sa bopp dañoo wax vingt heures na nga dem tëddi na nga dugg sa kër du moins vingt heures sa kër bu leen ndog-ndog jàpp ba nga nekk ci mbedd mi na nekk preuve yu leer koo ko wax mu dégg ko am ñoo xam ne ñu dépense def ndeysaan gis naa benn vidéo waa ji def ñu ko jàpp mu ne mu ne mu ne dama ut woon dépense ki ma doon seet sa gisuma ko ndeysaan ma gis chef bi laa làmb poosam fekk fa dara te xam naa pour jox ko dara mais dafay bàyyi ko mu dem mu làmb poosam nii génne mais dara nekk fa mu ne waa bàyyi nag mu dem xam nga kooku a policier bi xam na ne kii. Mhm. li ko dal mun na ma dal ba mu ko bëgg a dimb non seulement dina ko bàyyi mu dem mais dina ko dimbale yóbbu dara këram. xam naa juróom génnewul xaalis. Mhm. poche bi dara nekk si. Mhm. wax la ne suñu force de l'ordre yi ay nit la ñu ah. nañ am nañ yaay am papa am njaboot. comme ñun. donc ñoom bëgguñu sonal nit ñi mais daal boo ko tegul. ay mesures yu sévères. am ñoo xam ne ñu ko respecté. mais monsieur le mais dañu gis ni grave bëri na kàngam loolu. Cheikh Bakhoum ak ñeneen ak ñeneen bëgguma lim mais est-ce que tey implication implication ci xeex bi ak sa côté normalement lépp lu ñu war a def war nañ ko mën a yow ànd ak ak yow ndax yow sentir nga loolu adversité fii daanaka mën nañ wax ni amatul. Mhm. ndax Grand Yoff li ni mel la fa. bon ah mën de gisuma leen dégguma leen nit xam naa ñu ngi jàppale place suuf kooku am nañ sa sañ-sañ man daal benn homme politique laa gis ne ñëw na. accompagné ma bërki démb indil ma 500 mask mooy alfa Diallo homme politique nekk biir Grand Yoff. Mhm. waa APR. Mhm. ñu jël mbokk mi asalaamaaleykum. maaleykum salaam Demba. waaw ñu ngi ziar bu baax. ñu ngi lay bu baax a baax. alhamdulilah. allo. allo ñu ngi lay dégg bu baax a baax. allo waa Memba. waaw ñu ngi lay dégg waaw. waaw man la Jili Jili Der. Jili Der waaw. lii ngi lay ziar bu wér wér. ñu ngi ziar animateur de fii si kër gi. waaw damay déggee sama monsieur le maire rek. sama rakk la. <laughs> ah mi ngi fi ah? waaw comme dafa ñëw suñu kër. muy réew FM. dëgg la. waaw c'est normal moo wootee dégg ko ñu ngi déglu waxtaan bi mi ngi am solo bu baax a baax. <laughs> waaw di wax ni ñun de moom la ñuy tiitaroo mooy suñu monsieur le maire wax dëgg yàlla. jërëjëf <laughs> sama rakk la. Eh, Grand Yoff nag yàgg na am maire mais maire bu mel ni moom ah ñun de bi ñu juddoo léegi ñu ngi koy soogay gis. di ko félicité si job nice bu mu nekk di def di ko encouragé di ko wax ñu ngi ci ginnaawam. incha allah waaw ndaw la mais am na fulla am na fit te mën na lu muy def. Mhm. di ko wax respect rek ñu ngi koy jox respect bu wërëwër. Mhm. ziar waaw loolu laa amoon pour jàllale ko. ni ko nag ñëw na këram parce que booyam foofu lay liggéey. ah oui xaw ma koon. Mhm. waaw jaajëf jaajëf am solo merci beaucoup Djily der moom jaajëfal ko sant ko rek euh, adversaire yi ba tey wax nga fi mandat nit mun nga ñëw jug dem mais tey euh, am nga vision am na ay projets yi nga xam ne dëgmal nga ko ndax monsieur le maire dafay séntuwaat beneen mandat kii ngir mu continuer li ni mel xam naa koo fi wax rek danaa la Covid bi moo nekk suñu kanam mais pexey politique yi moom du jeex. waaw non man séntuwuma beneen mandat. fi man benn kilifa laa am mooy Khalifa Sall. Mhm. fi ma toog moo fa teg. su ma paree li may liggéey moom laa joxaat samay bilan sama bilan ne ko papa li laa liggéey mi ngi nii mooy xool ku ko neex mu ñëwaat xalifaay décidé du man. maay ku mu joxoñ ma jàppale ko man aw ma aw ma aw ma décision foofu daf maa dénkoon bàyyi samay moroom dénk ma su ma paree dama koy dénk di laa joxaat ko li ma dénkoon ne ko li ma dénkoon li laa si liggéey. <laughs> loolu lu ku ma ne jàppale ko ma jàppale. mais man awma ma aw ma aw ma ambition beneen mandat. Mhm. aw ma ambition falu. Mhm. man li li li xalifa décider rek. Mhm. loolu laay topp parce que mooy suma kilifa te nag ba may dénk neexoon na. bu dénkee keneen dama war a ànd ak kooku campagne gañe jox ko. l'essentiel mooy li ñu bëgg mooy pouvoir bi du génn loxoy xalifa Sall ak ku mu àndal. loolu mooy sama yitte. Grand Yoff changé na xar kanam ñu bari léegi dañ koy tiitaroo tey bu ñu déggee tey ci wàllum rap. nañu dugg rek ci entre parenthèse comme jiiri ci loolu la jëng diib porteur de voix la ak ñeneen ak ñeneen mel na ni grand ñu ngi def ay jéego ci mbir mi ndax yaa ngi leen di accompagner. bon diib man accompagner ma ko ah mosuma ko accompagner parce que mosuma toog moom mosuma ko gis bon mosuñu. mais ñu ngi tiitaroo grand F quand ah, mais mais diib diib diib fierté la yëpp. Mhm. diib daa war a gën a yokk sax. Mhm. te dib ñi ñi raf fii ëpp ñu xam-xam mënuñu ko te nag dafa jóge fu dara newu la dib daa jóge fu dara newul xeex ba ci kaw lu ma toog fii ne maa koy dimbal dimbalu ma ko kooku yëfu gor li mu am yëpp moo ko may mu man lu ma ko man def ko si dara man commune Grand Yoff def lu ko si dara lépp moo ko xeexal boppam am na boppam du ko defaat si biir Grand Yoff si waa Grand Yoff donc dib dañ koy encouragé jiili mi aussi jàmbaar la. Mhm. jiili xale la. Mhm. mais Arafat la dëkk. vraiment fii def ay émission bu am solo. tey mënoon na ne tey damay nekk damay ba grand li ñu bàkkee ñu mooy tuxkatu yàmbaa yi gainskat yi nangam nangam mais est-ce que day gains dib tey dans le monde entier xam nañ dib te doomu grand la. Mhm. ñëpp ko xam te doomu grand la. fu mu taxaw tey am respect boo xam ne Macky Sall moom lay am wala man moom lay am. wala keneen ak moom lay am. donc ça veut que ñu mel noonu. day tax ñu gën a wane xar-xar kanamu doomu Grand Yoff nu mu war a doomu Grand Yoff mm-hmm. day nekk modèle mm-hmm. am respect mm-hmm. am xam-xam mën na liggéey jox ñëpp cër ba pare am ba pare yéwén am yërmande loolu mooy doomu Grand Yoff mais li ñuy wax yëpp tey ñi gën si Grand Yoff mais kii ah, Guigui chanteuse la part la dem dans le jigéen la en plus di changer xar kanam gi dëkk bi daf ci am solo jili bii xale la. Mhm. mais même ay nawleem bu ñu toogee. Mhm. mais dañ ko respecté. lu muy def mën na ko. am na solo te mi ngi góor góorlu mhm. dañuy ñaan kay yàlla def ñu gën a accompagner ba ñu gën a yëgg ci kaw. ak ñeneen ak ñeneen ñeneen. voilà monsieur le ñu mënuñu euh, di nekk si njeextalu émission bi te laaj ñu tey euh, Khalifa Sall ancien maire wu euh, Dakar. Khalifa Sall géej nañ ko dégg géej nañ am ay nouvelle am yow mi nga xam ni jege yaa jege nga ko tey lan nga ñu mën a wax si Khalifa Sall euh, tey anam. mi ngi si jàmm mi ngi mi ngi wér sant yàlla dara jotu ko dañ nekk si weeru koor mi ngi woor. Mhm. donc mais lan la war a wax lu muy wax. en tout cas chaque jour mu xërtal ñu pour ñu dimbale nit ñi nekk si li askan bi bëgg. Mhm. ndax ku xam Khalifa xam ne liggéeykat la. li mu xam lépp mooy ñu ko fal li ñu bëgg pour dëkk bi doxee noonu mel noonu changé noonu lay nekkee man boo ku ma xool lu may liggéey Grand Yoff mhm. nga xam ne Khalifa laay copier mhm. man copier kenn Khalifa laay copier mhm. kenn doyu ma homme politique yi Khalifa rek moom ma doy tey maa moom ñu ngi dëggante ñu ngi waxtaan amul lu may def Grand Yoff mu ëpp Khalifa Sall lu baaxul moom mu déet lu bu ko def loolu baaxul gëjoo ko gis te non gëj naa ko gëj na gis am na ay peut-être ay ay un mois koor gi ba léegi. Mm-hmm. depuis mm-hmm. parce que. Mm-hmm. comme ne ku nekk toog sa ne restez chez vous quoi. voilà ma dem këram. su ma demee këram aussi. war naa seet sam war naa seet comme papa ci man. sama papa. mais aussi tamit du ma respecté normes yi gars yi wax. moo tax ma toog ma toog sama kër mais dama koy woo. ma ak moom. si koor gi woo naa ko. baalu ko àq. ndokkeel ko ndax suñu waajur la. moom itamit. waaye na ma message. Mhm. woo na ma tamit. Mhm. temps yi bi mu bi si euh, li nekk di liggéey si grand affaire Covid 19 bi. Mhm. encouragé ma. téléphone jotuma mu oo sama chef de cabinet nekk waxal ma jóg dama ko soxla. ma ngi koy woo mu ma ah, woo ko mu ne ma damay ko rek di courage. góorgóorlul fexeel ba waa grand buñ la jéppi. ni may waxee noonu. di waxee Barthélemy di ko waxee Cheikh Gueye di ko waxee keneen keneen. kàddu gu mujj tey ci émission gox bi euh, monsieur le maire lan la. sant leen gërëm leen. ñaan Macky Sall. le président Macky Sall du moins suñu doomu réew yi nga xam ne leen bloqué Europe ne buñ dee buñ ñibbisi na leve loolu Moodu Moodu bu dee Europe nga ne du ñëw na nga ko jàppee rek comme soldat bu moon xeex pour réew mi. Mm-hmm. dee ba pare nga ne bu kooram ñëw Sénégal. Mm-hmm. ne yërëm Moodu Moodu yi dimbale leen seen koor ñëw. seen njaboot mën ko gis. ñoom mm-hmm. gërëm leen sant yéen sant ko gërëm ko moom Madiop Diop moom moo nekkoon suñu gan tey ci émission gox bi fii ci rajo Rewmi FM. mbokk yi gërëm Adama Diallo moom mi nekkoon ci xarala gi jox leen dig daje ba ba dimanche beneen euh, ba dimanche ak beneen invité incha allah rabbi